képp koo xam ni jot na audio bi rek na ko partagé maa ngi ñaan ñi ne ci groupe bi yëpp képp koo jot rek fa nga toog na nga jël sa kurus wala boo jullee ba noppi nga ànd ak njàpp nga toog def laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah téeméeri yoon ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci liggéey bi ñi ngi ci liggéey bi. ñu bari nag ñu ngi ciy jàpp waaye mbir mi bari na bari koo xamante ni nii te se sirru bi nga xamante ni mooy toj njabar gi dugal Macky Sall kaso askan wi jóg loolu ci laa ilaha illa laa lañ ko liggéey léegi nag képp koo xamante ni jot na audio rek na jël laa ilaha illa laa laa ilaha illa laa mu def ko téeméeri yoon ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ñaan askan wi njab Macky Sall ak njabaram gi nga xamante ni indi leen fi ay ndoye ak ñëpp ak ñi nga xamante ne ni maanaam ñu ngi ci biir réew mi yor seen i course ñu leen di fay ñu leen di liggéeyal ñoom ñëpp mbooloo moo mooy doole na ñëpp de de ku jot audio bi rek na ko def laa ilaha illallah laa ilaha illallah 166 nga yéene maanaam Macky Sall nguuram daanu moog ñi nga moog ñi mu àndal te njabar gi nga xamante ni def nañ ko ci réew mi njabar gi yëpp toj jot ko partagé. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen baal wax euh, nañu continuer rek euh, lenn de leen ko wax bisu tey bii buy dellu si Macky Sall ak ñi ma àndal ñu bari dana fekk ñu jàpp leen na ñëpp continuer rek seen dugg kaso moom taxaw na te lu leer la du nu waxantu nag du nu ñi nga xam ne génn ci ci panel yi di wax. mën a diw man a diw mën a diw man a diw waaye liberté wóor day balaa bis bee dellu si Ousmane ko dana génn Macky Sall dugg ci kàttanu yàlla. xam nga ne Macky Sall saa ñu waxee moom képp ku am looy revendiquer rek mu ne dana jàmmarloog yow te xam ngeen ne màggal gi ay millions yi millions ñooy màggali gàmm gi ay million yi million ñooy gàmm ji léegi ñooñu ay millions yi millions bu ñu génnee am accès ci autoroute à bi auto am accès ci Ila Touba am accès ci fii ba kaw lax am accès fii ba Tivaouane baare yoon ya gàllankoor dem ak dikk ba loolu état mënu ci dara ay millions yi million lay doon su boobaa ay millions yi millions lay doon su boobaa kon sama gars yi nañu delloo si suñu xel ñu waxtaan réew mi bu yàqu ñun ñëppay perte te ñuy xeex li ñuy xeex bu defaroo ñëppay maase bokk jariñu te bu ñu demee bu ñu seetaanee muy ñi nga xam ne jege nañ sëriñ bi am information yii may am nañu dem wax ko sëriñ bi ndax bu ñu demee ba jublu ca sëriñ bi def déclaration ñaan manifestant yi am na ñoo xam ne mën nañoo bàyyi waaye am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a bàyyi te état bii nga xam ne moom lépp lu mu bëgg moom na ko am rek lay xool du xool li nga xam ne moo nekk ci conséquences yi ca kanam kon nañu teel a jóg ñu teel a waxtaan te xam ne réew mi ñoo ko bokk. millions yi millions yi nga xam ne nar nañoo dem màggal bu ñu jugee gàllankoor yoonu màggal gi dana nekk gàkk gàkk gàkk boo xam ne kenn mës koo gis. te ki ko teg mag ki ko teg sëñ Muntaxa mooy Macky Sall sëñ Muntaxa billaahi Macky sàll def na gàkk-gàkk bu mag ci ak nekkam barkeb Sëriñ Tuubaa Macky Sall gàkkal na sëñ Muntaxa billaahi ñu bëree bëri ñi ngi koy xool bët boo xam ne maanaam caay-caayu Macky Sall moo tax ñu di ko xool billaahi Macky Sall gàkkal na deru sëñ Muntaxa Macky Sall gàkkal deru sëñ Muntaxa Macky Sall yàq na deru sëñ Muntaxa ndax dañu gis sëñ bi fi mu ko teg ak ni makki Sall nekkee ñu jàpp ne Macky sëñ bi da koo bàyyi ci lim nekk te wallahi lancim bu ñu waxut ci lii fii laa leen koy waxee tey ñu ngi ci août 2023 màggal gi des na buñ ci jugut billahi da ngeen gis màggal gu manifestant ya di baare route ya dem ak dikk ba du tage témbe kenn du dem kenn du dikk te lii da ngeen ne waxoon naa ko bu Macky sàll bàyyiwul président soog ko lii dana xew ci Sénégal ci jamono yi ñu toll ñu ngi jamono dëgmal ñaari weer yoo xam ne gàmm ak màggal ñooy am te buñ ci jugut wala lancim da ngeen gis lii ma leen wax